alhamdulilah ma ngi jël nuyo bu tedd di jaar ci Free Info di nuyu wa Free Info yeb ci kilifa yi becc ñep wax deug yalla den gërem ci li ngeen ñew tay ci kër gi eh, di mo interview eh, fi ci kungal eh, di nuyu notable kungal yeb kilifa diine yeb kilifa aada yi di nuyu mbokk yi di nuyu sama waju sama yaay di nuyu mbokk yeb deug yalla di nuyu responsable Sénégal Prospère SPK naataange yu nekk Sénégal yëpp nek ci diaspora bi mais di nuyu également les sympathisants les militants de Sénégal Prospère SPK naataange di nuyu wa réew mi yëpp amul xaj amul sen ñëpp di leen nuyu euh, di len gërëm ci ni ngeen ñëw tay pour interview wu. jërëjëf euh, monsieur le ministre gannaaw bi nga défé sa rencontre aussi grand théâtre wane na say militants ak say sympathisants ñoo wax nga déposé say sa candidature à la présidentielle 2024 tey lan nga ñu mën lan nga mën a poussé ba tey sympathisants yi comme militants yi wax ne nag nga déposé candidature pour les élections présidentielles 2024. di tàmbalee sant yàlla bu baax a baax di xam ne àdduna moom hasard amul euh, dans des conditions déterminées les choses évoluent de manière déterminée tey dañoo ñëwoon gàmm fii ci Saloum xam nañ ëttu këru diine yuy oote gàmm fii ci Saalum nu mu toll ñëw gàmm ci suñu weti waajur ci suñu cosaan tey xibaar bu am solo bi di lan ñu accepter suñu candidat à la candidature jox ñu suñu fiche de parrainage sur le numéro de 53 fekk ñu Koungheul loolu nag du hasard dëgg yàlla euh, lépp nag dañ koy yóbbu rek ci ñaanu mag ñi ñaanu kilifa yi ñaanu Sénégal yëpp ñu peu xamee ko responsable yëpp xam ne ne ni suñu borom tàmbalee mbir mi dal na xel ñu ko ci sant yàlla ñu sant yàlla bu baax a baax di julli ci sangu sang bi yonent yàlla Muhammad wax nga dëgg le 14 juillet 2023 dem nañ vendredi dem nañ fële ci Grand Théâtre taxawal suñu parti politique mu tudd Sénégal prospère SP Karnatange jàmm xewal loolu nag ni mu ñëwee. Euh, mouvement de soutien la ñu depuis 2014 7 novembre 2014 nous avons ko mouvement de soutien à la politique de son excellent le président Macky Sall évolution mom, day am ci processus boo processus bu sérieux madame, organisation bu sérieuse xale bu juddoo dafay raam ni ñu ko xamee euh, dox euh, daw etc. mouvement de soutien boobu politique président Macky Sall doon soutenir ñu dem ba kilifa gu tedd googu sama xarit boobu président Macky Sall taxaw ne ci discours historique ne moom nekkatul candidat ñu xam ne mouvement de soutien moom mënatul nekk moom. parce que koy soutenir te moom taxaw na ne nekkatul candidat donc dafay soppeeku nekk parti politique rawatina organisation politique boo xamante ne mujj na teew ci réew mi yëpp ci 46 départements yëpp ci 14 régions yëpp ñu ne nag ko o kàngam ñu nek ci fep ñu ñew dajé grand théâtre ñu waxtaan adopter les statuts adopter règlement intérieur bi adopté def procès verbal dem déposer ko à la préfecture de Dakar mais nuyu la di gërem liggéey bu rafet bu personnel préfecture de Dakar def ñu nangu ko transmettre ko wa enquête ah, ñu enquête aussi valider ko ba tay ma ngay delu gouvernance des ministère de l'intérieur pour

parce que wax nañu ko ci ay audience yu bëri yu ñu euh, dajeeg moom également làq ngërëmu askan bi ci ay financement yoo xamante ne def nañ ko fii ci Koungheul rek dugal nañ fi cent vingt 224 million de francs CFA yoo xamante ne dugg na ci biir ku département Koungheul rawatina Kaffrine rawatina Mbirkilaan ca Kélimaan ca Malem Odar euh, ñu dugal fa Kër Mbukki ca Kaolack Saalum laay wax fu njuñ Passy barki démb lañ dem Kër ma Madiabel euh, dajale fa lu mat euh, téeméer ak juróom fukk jigéen yoo xamante ne ñu gunge leen ci ay financement ci ay formation loolu nag mandarga boobu nekk na ngërmande nekk na ñaan boo xam ne dafay topp euh, Sénégal prospère SPK naataange rawatina bés bi nga xam ne muy bésu mbégte la ñu nangu suñu candidature ba jox ñu. dossier de parrainage sous le numéro de 53 ñu war a dem euh, ci askan bi nag ñaan seen parrain seen seen parrainage. nga euh, doom kenn mënta dugal sa bopp école ñu ngi gërëm waajur yu baax ci loolu euh, nga gis ne wax naa ko ci sama benn interview ne Koungheul dañoo am taarixu ku jàngiwul école jàngi daara dañoo am taarix ne xale du taxawaalu lii nga tey ma taxaw. ay cadre Sénégal Koungheul yu ci diaspora bi ñu ngi ci bureau yi ñu ngi ci administration yi bokku ci Sénégal Nous kenn ku nekk def ma def école primaire en da dem dem Dakar am baccalauréat scientifique dem université Dakar ci faculté sciences jàng fa ba am suñu licence a ah, teel ko ba tegandi pour ñëw dimbale suñu yaay ci jàngal ci dem jàngale ci waaye continuer di jàng ba dugg université Alioune Diop de Bambey am fa suñu master en ingénierie de développement territorial di économiste jàng koom-koom ay diplôme yeneen ci wàllum koom-koom génn bitim réew dem eh, université Mayundol Bangkok Thaïlande am fa benn certification ci management de développement african contexte nak nga la ñuy suqalee réewum Afrique yi. rawatina réewu Sénégal bokk ko ak ay kangam yo xam jogé nañ jógee nañ Cap Vert ñun ñep ñu bokk formation bobu amaat benen master 2 ci management de l'énergie et des ressources pétrolières parce que tay mëno wax né économiste la comme comme la jang pétrole bi wara ñëw ci Sénégal muy comme comme bu yaato yaatu développé réew yu bari yu melni euh yenn réew yi réewu arab yeeg naka lay pétrole bobu mëna am jeextal ci cin ba nek ci kër ajartu njéemi ndaw donc lolo nekna na loo xamante koy la répartition la bonne répartition des recherches provenant de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières l'organisation administrative ba nga ne askan bi danañ gis ne suñuy suñu njiit yi kat baye nañu xel ci koom-koom bii ba du indi Jafé jafé, du indi problème Waye lu muy indi moy ndol jeex tak, lu muy indi moy ndol euh, wàññeeku lool lu muy indi moy emploi illimité manam ku bëgg liggéey di nga liggéey xana ya fuus te doon bëgguma liggéey donc mu nekk loo xamante njàngin boo xamante ne ci wàllum koom-koom ci wàllum économie doubler également suñu jaar-jaar ci administration wax naa la jaar-jaar bu jaar ci éducation jàng ca Iden Gossas def lu mat fukk at ak nangam ci en dehors de Dakar te loolu dafa am solo boo dëkkee ci région yi dëkk euh, jàng liggéey la préfecture de Kébémer comme lui le code des obligations de l'administration comme nous gérer gérer dossier administratif également dem tourisme def fa fukk at ak ñaar foofu nag ñu parcourir le monde dans ci cadre yu nga xamante ne dañ daan wax ak àdduna ci Sénégal ni mu mel ci tourisme ci wàllum nature ci wàllum culture pour ñu ñëw investir fii ci suñu comportement parce que nag boo demee ci bitim réew di wax ak qui ci sa soline ci sa courtoisie ci sa xam-xam ci sa yar ci sa ci ngay mandargalé Sénégal bu rafet ci conférence yi ñu Casablanca ci Rome ku dugg ci internet di Rome da nga alors mu nekk jaar-jaar yo xamantene ne nañu taxna ba ñu xam naka naka ak ñu ñu Sénégal mais également ñu dugg cabinet président en 2016. ci première mandat bi ba second mandat bi ba léegi ñu ngi ci cabinet mu nekk exception am na ñu may wax ne ma ah doo démissionné na non non kóllëre bi ma am ak président Macky Sall man du ma ko dindi yàlla dina ma laaj ëllëg e Abdou Mboup conseil ba nga déggoon ku ñoo El Hadj Macky Sall takkal la ko kóllëreem bi noo def moom damay wax sàmm naa ko li ma gënal ci sama ñaan samay mbokk ñaan sama mbokk nekk ci cabinet président de la nekk candidat

fonk bàyyi diw fokk yaay diw fokk bàjjan diw fonk leen ba léeg-léeg sax dañ naan waaye yow li ngay def nii woyof gi moom dafa ëpp waaye woyof gi nag fulla lal ko ba kenn du la yab xam sa bopp xam jullit nga ba doo dugg ci loo warta dugg doo sàcc doo wuruj doo yàq doomi aadama waaye aussi di nga indi fulla boo xamante ne di nga faxe say dëkkandoor tey ñun nu ñu yaroo euh, euh, cin bi nga am wala matériel bi nga am suba mën nga ko fekk kër ga gële yaay diw sama yaay nee na nga abal ko nangam loolu gis nañ ko ca Kajoor gis nañ ko ci Sine gis nañ ko fii ci Saalum waaye mu nekk ay valeur yoo xamante ne valeur sénégalaise la alors loolu nag dafa jeex tàkk ci ñun ñuy jullit ak xan ngam yàlla boo xam dara raxut nag euh, dara raxut bëgg dafa am yu ma bëgg junj dara raxuñu kenn tënkuñu moo tax ñu am aisance su dugg ci askan bi di tiitaroo suñu cosaan di tiitaroo suñu eh, xam-xam bi nga xam yàlla ko jaaree suñu waajur parce que nag wax dëgg yàlla ni nga mel du yow yow xool ko say doom kenn mënta jàngal sa doom sa bopp ni nga mel sa waajura yow boo bëggee xam sa bopp xool ko say doom donc buñ ko tiitaroo rek suñuy xam-xam dañ ci ñu waajur la ñuy tiitaroo donc nga gis ne jaar-jaar boobu tey may na ñu tey ci wàllum njàng ñu laaj Sénégal danañ xam nañ ko yor ci fànn yépp ndax lan Sénégal kat bitim réew dañ ko xamee ci mu wax leen ay cadres yu mag ñu ñëw wax ak ñoom wala jëflante ak ñoom ñu xam ay ne cadre de référence. kër gi ma duma la ma duma teree fanaan ca kër ga <laughs> tey ñi démissionné ci gouvernement ci gouvernement bi ñooñu bokkuñu ak man ñii dañoo nekk dans un gouvernement ñu jël chef de gouvernement ba def ko candidat muy seen kilifa. donc nous nek ci gouvernement bi démissionné man ci cabinet président la nek té cabinet boobu ma nek président nekul candidat té cabinet boobu ma nek ñeneen ñu comme man mën le xam ci également Macky Sall lu mu def kent ak da koy monsieur le ministre conseil

bokk nag moom dara ci gardiar politique bokk ma moom dara ci administration bokk ma ak moom dara tax mosuñ sax nuyonte mën na ma dégg xam ma mais man mën naa ko dégg xam ko respect laa ko respecté mu respecté ma sénégalais la sénégalais la sañ naa laaj sañ na laaj président Macky Sall allah kulli aal ni mu toll moom ay doomam lañuy laaj <laughs> parce que formé wu benn kàngam ay kàngam la formé. kàngam yi wuute nag ci comportement ci comportement ak jëfin ci réew mi lan tey man dama ñëw dugg ci cabinet président pour man man bokk naa ci les héritiers légitimes de son excellent le président Macky Sall ndax lan man dama daan wàcc terrain bi te kenn wàccul dem ci soxla escan bi te kenn sox demu ca di financer plus de trois millions cinq cent mille femmes ci réew Koungheul bi dugal nañ fi 224 millions manam dañ nan wax ne dem lañ ci soxlay askan bala ñu doon soxla ñooñu nak nek ci 46 départements yi ci 14 régions ñone ne ñun dañuy porter suñu candidature ci yar ak teggin ci respect. ngel la suñuy waxin ci campagne beeg ci pré campagne beeg ci parrainage buñ xass ken nañ wax lañu def parce que ñun bokkuñ ci candidat yi wax ne bu ngeen joxee réew bi ñu def nangam nangam dañ nan def nañ nangam ak nangam ak nangam. ci département bi def nañ nangam ci si départements yi Sédhiou dem nañ Sansamba def nañ fa tant de 35 millions de financement Kossy def nañ fa 65 millions de financement Sinthiou Garba dugal nañ fa 25 millions de financement Foundiougne Passy dugal nañ fa 35 millions de financement loolu la ñuy wax loolu la wax financé nañ 3 millions 500 mille opérateurs économiques tey ñu ngi ci réew mi ñooñu la ñuy ñaan ne votel leen ñu fekkee ñun jàppale ji votel nañ premier tour la ñuy jàll te loolu nag mu bëgg ci yee ci wax ceeg sama mbokk yi parce que balaa ngay wax feneen mu jëm feneen ah waxal ci say mbokk yi ba pare au soir du 25 février 2024 réew mi yëpp ci candidature di président Abdou Mbow 2024 xel yëpp fu muy njëkk dem Koungheul lay doon département Koungheul ndax gagné na ko alors. maa ngi yalwaan samay mbokk yalwaanin bu ànd ak yar ak teggin ñu dégg fi ñuy waxee ak fi ñuy jëfee te xam ne mbir mi soluma ko sama bopp de mënta ne waaw ñun ñaan yi imaam yi ñaan ci dëkk bi moo tax dëkk bi tey ren yàlla jifi mandargay président de la république donc loolu lu am solo loo xamante ne man moomuma ko cër bi

xamna naa duñ dekk di évaluer plan Sénégal émergent dañ koy jaajëfal waaye ci xalaat bobu parce que ingénieur économiste buñ doon and ak ay cadre ay Kangam parce que Sénégal nak dañoo fogné ne eh, ay diplôme dong moy xam-xam tay da nga jël ajartu njéemi ndaw mu nekk ci gox di femme de développement am xam-xam bo xamante ne bu ko permettre mu dugal 224 millions de financement ci gox bi qu'on soit experts, experte kan en développement ñu avons des ñooñu de développement yi cadre yi professeur d'université réfléchir ci ben programme bu muccu ayub Nous, xamantene da dafay plan Sénégal émergent télé def ñun ñu ko ci muy lim ta def wala lum télé def télé nak mën na en fonction du temps comme mën wala lum jotagul def parce que amul temps bi alors ci loolu nak ñun defal un programme tout programme pour la prospérité du Sénégal PPS porté par le Sénégal prospère plan pour la prospérité du Sénégal fann yu bari la jël waye mandargam c'est un développement du bas vers le haut tay gox je suis un ingénieur en développement territorial dama xam man sama ñang dafa. tegu ci gox bu ne nga développé ko développé Pël Cekkeen Lour Escale développé Koungheul Socé ak li ko wër développé département ci huit commune yëpp ba mu ñëw ci commune Koungheul nga jëm ko ci jël ci département wu Kaffrine yëpp région de Kaffrine développé wu nga dem ci région Sédhiou dem région Kolda dem région Tambacounda bu ci nekk mu cëslaay yooyu nga yokk ko mu dem ca kaw Sénégal nekk plan national gëmuma fonctionnaire bu toog bureau bind plan boo xamante ne danaan plan bii kat nañ koy defee ca Goudiri noonu lañ koy defee ca Koungheul parce que Goudiri lam am ci ressource minière Koungheul mën na ko bañ a am Koungheul lim am ci taw ak ci ressource céréale avantage comparatif euh, Cap mën na ko bañ a am Cap Skirring lam am set Koungheul mën na ko bañ a am parce que géej ga romb ca Cap Skirring alors ñu defee ko anam boo xamante ne euh, ci wàllum agriculture li ci njëkk nag mooy cet gi assainissement.

moy ay institution administration Sénégal ba ma juddoo ba may commencé xale bu ndaw ba tey maa ci xamna xaj ak sen bu am ci fonctionnaire xamna jafé jafé télé bu administration bi ci yenn côté yi administration ay kangam ñoo ci ci Sénégal nous avons une administration très sérieuse euh, le président Léopold Sédar Senghor président Abdou Diouf président Ablawat le ba président Macky Sall bokk ci institution yu gëna crédible ci aduna waaye ne lo ci rek mën nañ ko parfaire ba nga xamantene yenn répétition yi yenn agence yu répété wu yenn euh, service yu répété wu yenn rythme yi ñu changer ko ba nga xamantene alal bi dañ ko mën orienter muy muy secteur public bo xamantene dina mën té réew mi sóoraale waa réew mi yëg wa réew mi euh, ba bo leen mëna a bo leen mëna a ci say soxla danañ ko faj ci simla ak sala du nekk euh, palup nguur nga balm ci kaddu gu fuuy du lolou palu nguur teeku ci ngëm yalla teeku ci jaamu yalla répondre ci waxu suñu borom bu mag ba wama khaltul jin wa insa illa liya'budun yen nit binduma len luddut ngen ngeen jaamuma ma diine bu ne nangu na ko diine yep nangu nañ ne nit ak jinne sen teewa ci kaw suuf mo jaamu yalla naka lañu teey nguur gi jaamu ci yalla ba diine yekko ba as gore yi gor ya sonn te mënatuñ lacc meuna am politique sociale dañuy sen bop ci mbay développer agriculture bi développer élevage bi produire ci bi ak suñuy euh, gérer mi mi na waxtu wi ñu nek ni ay faire. yu tour fi ci Saloum wala ci Fouta naka ay usine ak industrie ci spéciale développer parce que économie Sénégal dafa maanaam da ngay gis économie bi flux économique bi gëna am doolé ci euh, région sangam yeneen région yi sen doom yi dañuy obligé traverser pour dem fofé te mën nañ développer ci avantage comparatif ci gox-goxu doolé ko région ba ci ay industrie ci ay zone économique spéciale yu may wa doomu gox ba ñu tok fa duñ xalaata sax génn région bi waxuma la gël gaal dem dem bitim rew donc loolu nekk na ay ay man-man yo xamantene bind nañ ko ci plan pour la prospérité du Sénégal ci ci sécurité lu ma ko waxee nit ñi dañ koy gëm parce que dem nañ Sinthiou Garba dem nañ Etiolo dem nañ Bandé Fassi dem nañ Sansamba dem nañ Kossy dem nañ Kolda tey bu ma limee nii sama am na ñoo xam danañ mere monsieur le ministre lu tax limoo suñ dëkk fu njuñ financé fa ñëpp xam nañu président Abdou Mbow ci wax ju tedd ci yar ci teggin ci jëriñ nit ci bëgg nit euh, Daouda balaa ngay jëriñ doomi aadama da nga koy bëgg. doomi aadama boo ko bëggee dootoo xool sikkam boo ko bëggee doo xool faram na far ci ku jéggi na far fu nekk démocratie apaisée senegal dafa soxla jàmm jàmm ku jéggi jàmm ku nekk ci nguur gi am na loo xam ne kenn du ko négocier ndax jàmm ku ko yelloo déedéet jàmm ñëpp ko yelloo loolu avantage bu jëkk la naka lañuy ñuy faxee ba nit ñi sonn ci kaso yi nit ñi di sonn ci géej gi nit ñi di sonn ci atelier yi nit ñi di sonn ci ci entreprise yi ci ma jot ñàkk jot marché marché yi yenn étranger yi jël ko no leen nit ñi di sonn ci payoor yu ndaw yi ñu dagg muumu jàmm boobu su ma ko mënee utiliser ngeen baal ma ci diisaayu kàddu gi waaye dama koy diisal ci man diisalu ko waxuma kenn moo ko def waaye doxalin fi Sénégal toll soxla na démocratie apaisée soxla na xol yi nekkaat benn soxla na gàncax gi environnement bi géej gi surtout ñu gën ko yaxanal gën ko protéger tey da nga gis nappkat yoo xamante ne tey dañuy obligé sànni set gaal wala yéeg seen gaal dem ba euh, euh, tefesu Espagne ya ba ko fa te gaal googu wax dëgg yàlla ñoom euh, maam gaala ndóoy ak ñooñu lañ ko doon doyee mooy dem feesa ko delloo ko jën ñëw rakk lekk ñëpp jël ci ba nga xamante ne tey boo demee ca caaro sur mer nga dem ca waaxi jowaalo ya ah, euh, nit ñaa ngay kontaan ak ak gumbe <laughs> alors mu nekk mbégte moo xamante ne tey xaw na raar ndax lan bato yu mag yi ñëw di jeexal suñu géej gi waxuñu doo am contrat de pêche mais encadré orienté vers le développement que sénégalais yi nekk ñoo xamante ne ñoo exploité géej gi ak aussi nos nature nos forêts classées

bu benn journaliste interrogé ma ci diw nangam wala nangam diw nangam moomu yàlla na ko yàlla dolli teral yàlla na ko yàlla dul sutura parce que ñoo bokk senegal buñ sañoon kenn ku nekk kat danañ yéex a dem ay dëj danañ jéem a yéex a wax massa ci feebar bi yaa ngi dégg danañ yéex a dox ne dimbalal diw mu génn ci jafe-jafe mu nekk.

am na beneen jeunesse boo xamante ne moom moom amul chance boobu euh, jàngam bënnul fenn fii mais fu mu war a orienté ci métier am na beneen jeunesse boo xamante ne jàngul boobu jàngul bee baykat la am na beneen jeunesse boo xamante ne moom da nga ko war a dimbale ci wàllum euh, ci yeneen donc pàcc pàcc yaa ngi gis li ma wax donc ñun jeunesse bu ci nekk ci wàllum formation professionnelle boo ko motee parce que balaa ngay wax ne chômeur la da nga naan am naa xam-xam sàngam pour liggéey te aw ma liggéey. loolu mooy chômeur xam-xam bobu ñu fexe nga am ko ba paré nak li mo wax ci économie bi zone économie spéciale li mo wax ci agriculture li mo wax ci élevage li mo wax ci tourisme danañ am emploi illimité duñu ay emploi am na ñu naan 1 million cinq cent emploi non non man sama xam xam économiste dafa ma may mané emploi illimité lañu am Sénégal yaay bëgg liggéey ñëw liggéey ci fànn bi nga nek yow mi nga xamante ne. jàngoo wala sa njàng dafa am fu toll te mën nga nekk ambulant wala nga nekk ci cag-cag yi wala nga nekk ci leneen danañ la encadrer utal la métier boo xamante ne di nga ki mën daan sa doole convenablement jaamu ci yàlla mën ci dimbale say say waajur te tamit programme mu ay immigration clandestine du du du naan euh, danañ faxe di ñu degal non kooku di uti la muy uti la muy uti da nga koy tegal ci ci ci peggu këram. day génn gis ne am naa liggéey kon du dem dem nag du ñàkk nag tukki tukki moom bu réew mi doon nekk ci ay euh, <laughs> kii sax euh, prospérité di nga gis ñu jógee fii dem dëkk beneen dëkk parce que loolu suñ borom moo ko bindee parce que wërsëg yi léeg-léeg nga dëkk euh, nguy jaraaf fekk sa wërsëg ku nga la nekk fa nga ñëw jël si ko am na ku dëkk ku nga nguy jaraaf lay utee ji wërsëgam loolu yàlla dafay bindee noonu da ngay nangu dogal suñ borom waaye yow mi yoru réew mi dinga yërëm jik xale yi yërëm jigéen ñi yërëm ñi nga xamante am nañ difficulté wàllum handicap yërëmande bu toll ni am générosité de protection fuñ far ak fuñ farut luñ la xaxare ak buñ la xaxarut protéger leen ba ñu xam ne seen réew mi kat yërëm nañ leen tey boo juddoo ci waajur woo xamante ne am nay milliard de am na loo fekk loolu nag fekkin boobu ñun la ñuy faxe ku fi juddu ci réew mi rek. fekk fi xéwal goo xamante ne bu jógee ci pétrole bi bu jógee ci état bi bu jógee ci bitim réew bu jógee ci mbay mi bu jógee ci tourisme bu jógee ci dajale ko pour waar réew mi bañ jël réew mi jëriñoo réew mi ba nga xamante ne euh, dinañ nekk euh, yéenante suñu biir bu ànd ak ngëm yàlla bu mas sëkk fees dellu suñu xol suñu jëf suñu doxalin ak suñu nekkin. li may tëjee mooy ñaan sama mbokk yi d'abord Koungheul. parrainage yi ñu nangul ma ci le numéro 53 mu nek lu jafé bëri na am ñu def candidat ci mis direction des élections déposé ñu ne leen déedéet mënu leen nek candidat donc li rek nek go naam candidat waye candidat nga à la candidature ñu nangul lako ko lu ñu ma koy nangu leen lu muy sottee sama mbokk yi ne nanguna Abdou Mboub nek candidat pour nek président de la République signé ma ngi ñaan ñëpp. ñu def kooku moom bu ñu ka buñ buñ buñ buñ buñ parrainel kenn parce que dëkk bi yëpp mënuñu bokk far ci benn parti politique waaye lii maa ngi leen koy ñaan ñu parrainel ma lii maa ngi leen koy ñaan yërmande ci kàddu yi bu ñu xuloo nañu amee woon ndëgërlaay ci càmm ji ba nuyuwante na continuer candidature bu ñu ci yàq dara na ko gën a dëgëral maa ngi ñaan ci di leen yalwaan ci wax ju rafet ji di leen yalwaan aussi ci buñ génnee ci candidature bi yalwaan xam naa diis na ñaan xamna lay wax ah yalla wa ba pat tey wax rek fa mbir mi toll parce que euleuk buñ né 25 février 2024 candidat Abdou mbop dañ nan nu kungal démé ah nu kungal démé nak sa digëntal ak say mbokk te man fogna gis na jël mbokk askan bop sama mbokk deret jam ji sama mbokk dekk ndor jam naa dekk bi jam parce que ba ma war a tabax fii dëkk sama dëkk dëkkuwaay dama ko fa def te xaaruma dara yaa ngi dégg damay ñëw toog fii une semaine deux semaine nekkuma toog fenn rek loolu taxut ma bañ yeneen gox yi bañ fi waree def ay xéwal def nañ fi xéwal ma sëkk mu tas amul xaj ak seen donc kooku tey bu ñëwee laaj laaj koo xamante ne ah yaa ngi koy dégg mais kii xam nga ko da nga naan di woy yaayam di woy waajuram di woy maamam fii suñu juróom-ñaari maam ñu ngi tëdd fii. ci kër kër gu mag yi ci ginnaaw bi donc nga xam ne wax lii may wax nii waxin la boo xamante pour njëriñu Sénégal pour njëriñu 14 régions yi pour njëriñu Saloum pour njëriñu euh, euh, Koungheul nga jël ne boo jëlee Kaolack ba dem Tambacounda lu du yoonu ngànd bi foo wàccati ñàll la yoon yi am na jafe-jafe am na jafe-jafe ndox am na jafe-jafe courant ñaara këru diine ñoo fi nekk am jafe-jafe ca jumaa ja am jafe-jafe ca daara ja am jafe-jafe luy parce que Saalum da nga gis ku jël doomam indi ko ci daara ji ni ko sëriñ bi jërëjëf sëriñ bi yor ay junne junnee daara ku dëkkul Saalum doo ko xam parce que ñun ñii bu njàngeewul Sine Matar ña nga jàngee Arafat wala ña nga jàngee Kër Ngay wala nga jàng ña nga jàngee Dimisxa wala ña nga jàngee ci kër Baye Moussa Diop wala feneen ci bay baaba baabu baa Baye Babu Seck kenn du ñu jox kaamil alxuraan ñu koy jàngee ci beneen làkk bu dul alxuraan donc nga gis ne ñun xam nañ bu baax fan la ñuy jaar Saalum tumuranke jeex fi mu jeex tàkk te loolu nag maire mënu ko ministre mënu ko de conseil départemental mënu ko kuy xamañ bi électricité bi mënuñu ko président de la république askanoo ci dëkk bi xam dëkk bi moo mën loolu may sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ci wax ji fekkee am na ñu ñagas di orienté di wax ne ku rafet xol mooy wax ak yéen ku am yar moo wax ak yéen ku gëm yàlla mooy wax ak yéen ku ngeen yar ci Koungheul koo xamante Sénégal apprécier nañ ko àdduna apprécier nañ ko mooy wax ak yéen alhamdulilah allahuma salli ala sayyidina muhammad sallam